ci li nga xam ne moom moo mujj dañ ci ànd ak euh, DJ Makhou borom doxaluwaay ak ganam El Gueye tey nag euh, ñu nar a waxtaanee kon lu jëm ci wàllum carrière carrière musicale am ak lépp loo xamante ne nag mi ngi ci dox jamono ji euh, maxu ma bàyyi la kon nga nuyoo daal di dalal sa gan. jërëjëf Seynabou nuyooti rek ñi nga xam ñu ngi seetaan jaajëfal baax a baax suma xarit di sama gan tey di El Gueye di jeune waaye nag bëgg lool li muy def mën ko également waaye tamit waane si comme ni ma koy waxee maanaam daf si voilà ñu koy jaajëfal yàlla maa ngi lay nuyu. wi jàllu jàllu jàllu jàllo jàllu jàllu jàll wi jàllu jàllu ma sikk ngu ñu maraan ak ma silu ngu ñu maraan demba ndeelaay seen bàyyi demba ndeela ndeela mbaar mbay ma kayre ndeela mbaare woo sama waa ji ziar naa la. delloo la ziar jaajëfal bu baax a baax a baax fa nga génn si euh, li nga xam nag moom mooy tagg dafa am solo si si si euh, dafa am solo jëlal. Euh, xaar. voilà merci El Gueye defe naa ni tamit dañuy def rek bala ñuy wéyal waxtaan wi ànd ak ki nga xam ne mooy Mame Sidi avec sa complicité ñu seetaan li nga xam moom mooy nag portrait El Gueye dellu si sur le plateau. invité de déj tey moo di El Gueye juddoo ci waawan yaroo fa bokk ci askanu ngéwal donné way ci ndey ak ci baay kuy sa maam El Hadji Gueye Macoura Penda doon waykat bu mag sa ci waawan di turandoowam El Gueye ci bu muy ndaw rekk nekk classe CM2 la intégré troupe théâtrale bu seen école doon assuré kër yi El Gueye ci atum 2002 la njëkk bokk ci compilation du fi yam moom ak Carlou D 2004 mu bokk ci compilation yaay bañ ak groupe ATM bu Grand Yoff ci morceau boobu li mooy sama yéene si même at bi ñetti weer kese ci tegu mu génne album bu njëkk duppee ko succès maestro Sega ak Ouzin Ndoye bu studio 2000 defoon ko 2007 mu génne ñaareelu albumam duppee ko li ci xibaar 2009 mu def single souhait 2011 mu teg si beneen single duppee ko njaawa ci janvier 2015 bi la génne ñetteelu albumam doom duppee ko namoo dara tabaski la si faaw mu yëg 4 avril bi di suñu fet indépendance la dem tournée Bruxelles doon fa fêté ak groupe am Rythme ay vidéo wu El Gueye ràññee nañ si euh, sama yéene euh, télépathie euh, ji jamono li si xibaar bànneex suwe njaw namoo dara uni ak buur gédala El Gueye mi ngi préparé album international ak beneen portugais Paulo Lima invité petit déj tey di El Gueye di jéem a Seynabou Ndiaye yow ak ñu toog ci plateau bi yëpp seen ganangoo bu la neexee voilà présentation wu El Gueye ñu àndoon ceeg ki nga xamante ne moo di Néné Jupiter Ndiaye di ko jaajëfal moom it euh, bu baax a baax wax nañu ni mu dooree ak fi nga xam ne fa la yegg si voilà di jaajëfal également euh, Pape Modou ñu koy béggi si bu baax si montage bi euh, di ñaanal jàmm également Alioune Diop voilà moom tamit wax dëgg yàlla di suñu monteur ñu koy jaajëfal defe naa ni dégg gis ngeen portrait bi li mu wax muy rek euh, passage yu El el sa passage defe naa ni bu ñu nee El nekk si askanu Ngéwal bokk si askanu Ngéwal si ndey si baay doon ko waaye sa maam bi nga xam moom dañ te doon waykat bu mag sa Tiwaawan eh, defe naa tamit mboo eh, woyee wàcc nga mais eh, dafa am passage bi nga xam ne dafa marqué surtout nag si troupe théâtre bi nga xam ni moom nga intégré woon si si sa école bi nga amee bi ngay def CM2 noon naka nga si duggee parce que tamit xëy na mën nga nekk si keppaaru ngéwal te bañ a way wala bañ a mën a way waaye dugg nga intégré wu nga si troupe bi am na lu si xew naka nga duggee si troupe bi ak lan moo si xewoon. waaw maxu bien avant permettez-moi en fait ma nuyu ñi nga xamante ne fekk naa leen fii parce que dama ñëw xam nga maa ngi soo a yeewu. donc fallait que ma yëngal voix bi. voix bi <laughs> ñëw j'ai pas encore pris mon petit déjeuner dama ne mm. Walf laa koy jëlee si. donc voilà ma nuyu sénégalais yi di nuyu vraiment ñi nga xamante ne mooy téléspectateurs yi nga xamante ne ñu ngi seetaan petit déj. Mm-hmm. et pour vous dire que ni vraiment ils sont bien nombreux ah. donc euh, je profite de cette occasion di leen ziar ñoom ñëpp leen wax nii tey waaw dañuy fas yéene ndekki fii rek. waaw on va <laughs> donc euh, sa sa ni nga intégré euh, troupe théâtrale bi ak say début foofu si sa école ak euh, am na aussi tamit loo ma si nettali euh, lan la woon. waaw Mahfouz je pense bien que ni euh, man dans mes débuts bi may def sama école primaire. Mhm. yàlla dafa defoon bi may def sa cm mhm. dama amoon fait ouverture boo xamante ni d'esprit pour bëggoon bind livre ah. c'était vraiment très prématuré certes. Mhm. parce que nit ñu bëri dañu ko gisee noonu. Mhm. donc su ma commencé bind ay pages euh, créer samay euh, personnages joxe ay caractéristiques. Euh, bëgg bind livre. mais c'était dommage parce que xam nga souvent quartier bi nga xam da nga fay yaroo. mag ñi fa nekk dañuy xool ni bon mais y a des profs d'université yoo xamante ils parviennent même pas à écrire des ah, livres. Ah, ah. donc pourquoi a nekk un jeune bëgg a bind livre damay jël sama dictionnaire di xool su ma bindee damay corriger. di corriger donc pour mën a bind livre. Mhm. mais malheureusement ils m'ont très tôt mhm. ma commencé bind nag ay ay way. Mhm. donc di ko bëgg na su ma amee ku ma ko jaay naa ko jaay quoi parce que étant toute jeune. j'avais vraiment cette ouverture. Euh, benn instant. Euh, troupe théâtrale bi nga xam ne dafa nekkoon si euh, si école bi. donc ñoom dañ doon def à chaque fois ay ay théâtre mu amoon ay ballet ay chœur d'ouverture benn jour nag euh, bon ki nga xam moo waroon way cœur d'ouverture bi. Mhm. ñëwul woon absenté. Mhm. donc ñu ni ma est-ce mën nga ko woy mhm. et j'ai essayé et j'ai constaté ni j'avais j'avais vraiment en fait nit ñi doon constaté voix bi nga xam ne amoon naa ko. donc euh, loolu gën ma poussé nag ma ne bon ok dama doon bind di ko jaay. di bëgg ku ko jaay mais léegi war naa ko mun way <laughs> war nga ko mën a way euh, tey dañuy ñëwaat si sa ñëw Dakar nga jógee Tivaouane parce que fa nga yaroo fa nga màggee fa nga juddoo euh, defee fa sa euh, cycle primaire mais sa ñëw dakaar également ñëw nga dakaar également participer nga pour la première fois si benn compilation. Euh, comment ça s'est passé. waaw avant may ñëw Dakar sax. Mm-hmm. parce que bon en fait bi nga xamante ni commencé naa def euh, musique un tout petit mm-hmm. euh, di def di woyantu noonu. bon man dama sama cycle secondaire dama ko def au niveau de Tivaouane. Mm-hmm. mais bi ma gisee ni benn instant aussi euh, dama xooloon ni sama yaay dafa nekkoon dama bokkoon famille boo xam ne dañu woon doole tuuti. te bëggoon naa ñafe vraiment pour que mettre leen à l'abri. donc loolu poussé ma bon instant boobu maa ngi dégg ñuy wax affaire formation professionnelle. bon ma ne ok damay génn enseignement général pour def enseignement professionnel loolu moom ma indi à Dakar. Mhm. bi ma ñëwee donc ma def CAP BEP. Mhm. pour en électricité mhm. mais tout le temps gardant la ligne musicale parce que xam nga dañuy faral di wax ni liggéeyu maam ci sët lay feeñ. donc man sama papa euh, si famille géwél mag laa bokk. mais sama papa plutôt moom dundul maanaam géwélisme boobu moom dund ko. ce qui fekk ni bi sam maam génne àdduna dafa maye sabar yaag ndënd yaag lépp mu hmm. maye ko. donc pour bañ ngeen dugg si. waaw pour bañ ñu duggoon intégré loolu. parce que buggoon nañu nekk ay. moo hmm. donc mais xam nga yàlla li muy def maam moom dafa for si sët. Hmm. donc en général du du feeñ si si doom sax mais sët lay gën a agir. donc loolu moo tax defe naa ni deret moom mu woyloo. deret moo la woyloo ba nga ñëw euh, nan nga duggee si euh, compilation boobu bi nga xam mooy sa première bi nga xam ni ci dugg ak Carlou D. waaw compilation boobu mooy compilation Sénégal du fi yem. Mhm. Euh, benn allemand bu tuddoon Steven Toutberg. Mhm. moo ko produire woon. Mhm. bi mu ñëwee mu copte ñu par le biais d'un technicien qui était là-bas euh, qui s'appelle donc loolu ñu defoon compilation bu nga xam muy compilation bu boo xamante ni vraiment ça me réveille beaucoup de souvenirs. mortel. la deuxième compilation également muy compilation bi nga xam Maestro Musique Sega moo ko defoon nga intégré aussi bokk si ak groupe Grand Yoff ah. parce que El Gueye Grand Yoff je pense que ni c' est lépp la également. waaw waaw euh, ATM. en fait Grand Yoff moom mooy sama fief. Mm-hmm. waaw parce que Grand Yoff dafa nekk zone boo xam bi ma ñëwee Dakar def naa fi laa njëkk a wàcc. Mm-hmm. ba léegi fa laa nekk donc ils m'ont accueilli. Mm-hmm. ci seen biir. Euh, et ñuy def compilation boo xamante ni bon ki nga ko doon produire doomu Grand Yoff la muy euh, maestro musique Sega ma koy nuyu de passage. donc mu defoon compilation boobu. Euh, bi ñu paree si compilation donc. compilation la boo xamante ne c'était tellement large. Ah. Euh, ñi si bokkoon ay Fata y avait aussi Carlou D. Mhm. Euh, donc ñu ñoo ko defandoo woon mhm. quoi donc muy compilation yaay bañ. ma def ko ak le groupe ATM. ATM de Grand Yoff morceau bi nga xam ni mhm. nga defuñu benn rappel bu ndaw rek lii mooy sama yéene voilà. addunay wooy lii. sama yéene lii mooy sama yéene wooy ndeysaan eh, mu doonoon rek morceau bu cartonné également morceau bi nga xam vraiment yóbbu na El Gaye fu sori yóbbu également groupe boobu mooy ATM ma leen di jaajëfal jaajëfal également ñoom tonton Grand Yoff ñu ngi leen di bëggee maestro Sega également eh, sama yéene Euh, je pense que ni euh, moo la gën a gën a génne euh, ñu bare si la ñu vraiment commencé découvrir El Gueye ba ñu bare aussi tamit pare pour liggéey yow pour sa premier album waaw je pense que c'est un morceau qui a beaucoup marqué. Mhm. Euh, parce que su ma xoolee ba léegi nii sax am na benn rajo de la place boo xam ne dañ ko jël def ko benn. Euh, générique donc euh, morceau la boo xam ne ça a beaucoup marqué franchement. Mhm. Mm. nga def ko après ce premier album noonu la ñëwee euh, ñan ñoo intéressé wu woon. je vois comme Maestro mi ngi foon Ousin Ousin Ousin Ndoye studio dañuy bëgg a def album bi moom donc il était prêt pour studio pour indi ay apport aussi mm-hmm. donc et Maestro Musique Sega aussi de même mm-hmm. bon donc si lañ génnee album boobu nga xamante ni mooy album succès succès mhm. euh, ñaata morceau ñoo si nekkoon yan morceau ñoo. waaw succès y avait y avait télépathie. télépathie de en fait ay sensibilité yoo xamante ni waa xolo coro nee na moom télépathie. voilà mi ngi yëngal mi ngi yëngal ki nekk Londres mooy ko tuuti ñu voilà hmm. ki nekk Dakar ki nekk Londres may may ko si tuuti. fu mu mënti ak lu mu sori sori waaw xale bi lee coro foo mënti ne. ak lu mu sori sori waaw télépathie hmm. lay doon. su amee lu la dal mon cœur bat fort et ni sensibilité waaw ni télépathie je sais que <laughs> noo xam naa li tax xam naa li tax nga koy lijjanti. kii ah. kañ ngay tëggaat way bi am na solo de. non xam nga léegi on joue pratiquement en live. Ah. donc dama la koy may en live. way la ci lu rëy. voilà euh, euh, muy doon lu am solo muy sa premier album succès télépathie nekk fii ak yan morceau nga waxoon ñoo si nekk. y avait télépathie y mhm. avait euh, jamono. Mhm. y avait aussi Papa Serigne. Papa mhm. Serigne qui parlait d'un d'un jeune arriviste. qui venait du en boo xam dafa jóge woon village. ñëw Ndakaaru miin ñu bi dëkk ba donc et que mu fàttali fi mu bokkoon ak li ko taxoon jóg ñuy wax ne kooku bon moom aussi bi mu ñëw yaayam ni mu ko yabe woon tout ça là mais malgré tout ça mu dérouté donc euh, mooy Papa Serigne morceau boo xamante ni bokk na. 2004 da nga def compilation euh, bi nga xam ni da nga si def lii mooy sama yéene. 3 mhm. euh, après nga def album. 3 mois après 2004 voilà donc si même si si 2004 bi la. Mhm, mhm. nga toog ba 2007 soo koy génne beneen album c'est-à-dire 3 ans après. muy album bi nga xam ni amoon na tuuti difficulté quand même avant nga koy génne. Euh, lu taxoon euh, temps boobu bu ñu bu ñu gisee ni temps jamono jooju euh, tous les deux ans am na yoo xam sax at bu at la génnee yow nga jël mm. toog trois ans la la mooy indi loolu. waaw parce album boobu bi ñu ko waree génne. Mm-hmm. xam nga en premier lieu en fait en fait Mamadou Koté. Mm-hmm. yàlla na ko yàlla yërëm. amiin amiin moom moo amoon intention pour defal ma production. Mm-hmm. donc bi ñëwee ñu waxtaan on avait vraiment collaboré. bon mu accueillir ñu mettre si ay conditions. donc préparé woon aussi pour. vraiment ñu liggéey si ay anam yu mucc ayib. Mhm. mais malheureusement après bi ñu waxee affaire contrat bi ba teg lépp ba mu war a <clears throat> def contrat bi. Mhm. il s'est trouvé que ni. Euh, su ma ñëwatee dootuma mën a sax gis Mamadou Konté ah damay ñëw je demande Mamadou ñun Mamadou il est parti en voyage et malheureusement c'était une personne boo xamante ni moom du woon xam numéro téléphone am. Mhm. parce que du donc si fixe bi nga ko mën a woo mais que eh, bon peut-être que y avait des gens dessus. dessus dessous qui ne parce que. Euh, man dama doon xëy sax su ma demee Sandaga ñu mais dégg naa Momadou moo lay produire ah donc euh, yow sa production pare na ba pare nangam naa bon. mais malheureusement bon mhm. am na ay détails yu nekk si yoo xam ne bon la c'est le c'est euh, boobu nga ko tuddee li si xibaar. li si xibaar voilà nga mujj ko génnee ñaata titre ñoo si nekk ak pourquoi nga jël li si xibaar. waaw album bi après en fait man maa ko mujj produire ah. Mhm. man maa ko mujj produire parce que xam nga man d'habitude damay jël ay sa su ma bon en fait je prends mes propres moyens. Mm-hmm. boo gisee li may def mu nekk loo xamante ne dafay yeex ma koy def pas à pas. Mm-hmm. c'est parce que damay cavalier seul c'est-à-dire man maay liggéey one man show laa si li may def. maa koy def di mettre les moyens qu'il faut et que euh, en fait loolu xam naa ne peut-être moo ma gënal xaj na dina yeex ma àgg fu ma jëm mais am naa nu ma gisee am naa nu may doxalee ba nga xamante ni lépp luy samay production. Euh, man maa koy defal sama bopp ba tey yàlla def tey ma samp group mhm. euh, bon nekkul groupe boo xamante ni c'est avec l'appui de quiconque kenn amul ku ci def appui. Mhm. donc ma yàlla dogal ma leen di jël di ànd ak ñoom di voyage yi fépp si àdduna bi. nga def voyage boobu lay ñëw Bruxelles euh, Belgique. avril di fa fête suñu indépendance. ak sa groupe yaa ngi seen rythme. Mhm. donc pourquoi ce choix. oui seen rythme en fait rassembler lépp li nga xamante mooy les rythmes du Sénégal. Mhm. ce qui a amené le nom de de Sénérythme. Mhm. et que bon euh, fête l'indépendance bi nga xamante ne mooy fête l'indépendance du Sénégal. donc mhm. moi j'avais trouvé que ni. Euh, en fait puisque maa ngi doon voyager lu bari dama ko ñëw. Euh, c'est pas parce que j'ai ciblé en fait mm, Belgique. mais euh, j'avais des relations un partout. d'autant plus que en fait am na ay connexions au niveau de, de Portugal Paris tout ça. parce que à Paris je pense bien que ni chaque 4 avril dañuy def léegi euh, Bruxelles mais suñu jógee Bruxelles on va aller à Paris. Mm -hmm. donc euh, ce qui dit que ni bon dem si euh, un peu partout en Europe pour di fa mhm. def di fa def fa jouer bu baax a baax a baax a baax. l'album Namoo moo Dara se porte bien. ça va dans l'ensemble ah ça va dans l'ensemble. li ma bëgg xam mooy sur le plan yaa ngi pare album international. waaw ak benn congolais ak benn congolais. portugais portugais autant pour moi. Mhm. kañ la ak quand et puis euh, connexion boobu naka nga ko amee. waaw loolu moom ki ko dox defe naa ne sama benn mag la boo xamante ni mhm. nekkul Sénégal pour le moment mi ngi Espagne. Mhm. muy Ibrahima Cissé. Mhm. donc moo ñu mettre en rapport ak Paulo Lima. Euh, moom dafa copté woon envoyé ay son fii Sénégal. pour bëgg ñu ko siy tegal ay voix pour mu mën a def génne albumam moom. parce que c'est un chanteur. hormis tout ça. bon donc ci kaw loolu bi mu déggee bi ñëwee ñu copté ñu pour ñu ñëw rek teg suñu voix. Euh, j'avais mis ma voix mu déglu ko bu mu demee nag voix bi convaincre ko trop donc mu jël loolu génne ko moom ci albumum international. Mhm. ba pare nag ni dafa bëgg ñu liggéey. donc ce qui a fait ñu démarré suñu production album international bi ñuy def nii. et ça sera pour quand. pour bientôt parce